ñaawoon nam xel waaye nag lu ma tax xamle xamle na ko waree na aw dox yéen itam lan mën nañ caa xamee lan ca lañ ca lañ ca àttan sëriñ bi boolewul ak dara boromam ak yonent boroomam nag moo ko tànn bàyyi ko ci biir jaam ñi mu nekkal ci boroomam di won jaam ñi nañu war a jaamoo suñ boroom tum kem kàttan loolu kon loolu moo fi moo ci bàyyi moo nu ci war a bàyyi euh, sëriñ bi boolewul ak dara boromam ak yonent bi rek waaye boromam ko tànnal nag bàyyi ko ci biir jaam ñi mu nekkal ci boromam wane ci nañu war a nekkale nañu war a jaame su borom loolu nag dara da ci loolu jiitu xasu wajhillah jublu jublu suñu borom jublu ko suñu lépp wan gannaaw lu dul moom beddu adduna te daal àdduna bañ noo saf nekk ci nag nekk ci ñim gën a la sëriñ bi nekk ci nim lim fi lim fi bàyyil kon lanu ci war a bàyyi rek moo di lim la fi bàyyi lim la fi bàyyil suñ lépp jëmale ko suñu waroon suñu lépp mu jëmee ko nag ci sant sëriñ bi ak sax dàkk ci liggéeyal ko liggéey bi nag moo di nekkal ko ci lim lim lim bëgg moo di sax dàkk ci jaamu yàlla sunna sunant bi sax dàkk ci jaamu yàlla ci joxe suñ lépp daray àdduna bañ noo saf loolu li muy indil du doon taal dara lu suñ boroom ak àllaaxira ka nu jëm du suñ taal àdduna du suñ taal suñ bopp du suñ taal àdduna waaye nag ni li tax suñ boroom tànn sëriñ bi mu nekk ci biir jaam ñi nekkal ko ci di woon jaam ñi nañ ko war a jaamoo loolu moo nu ci bàyyi loolu rek moo nu ci bàyyi kon nu lu ci loolu bu baax a baax nan lu ci nan góor bu baax a baax ci nan mën a sant sëriñ bi ci nan ko mën a nan ko mën a liggéeyee ci li nu fi bàyyil ñu sax dàkk ci jaamu yàlla rek ci suñ lépp nag. na ko suñu borom diglee suñu kem kàttan na mu ko teree nu da ko def suñu kem kàttan na suñu borom bëgg nu ko bëgg suñu kem kàttan lam bañ du ko bañ suñu kem kàttan sax dàkk ci loolu loolu moom rek lañu mën a liggéeyal sëriñ bi mun ko mën a sant itam kon góor góorgóorlu bu baax a baax da warul fi ne warul fee bàyyi ngir loolu loolu nag ci kattan suñu borom ak xereñam du du mu yàqal dara lan war a am ci àdduna ci ci yiw du nu xañ dara lan war a am ci yiw te loolu rek nag itam mooy tax nu mën a sëñ seen sëriñ bi mooy tax nu mën a sax ci liggéeyal ko kon nañu góorgóorlu bu baax a baax a baax sax dàkk ci li mu fi bàyyil man moom moo ñuy defar suñu lépp moo ñuy sàmm ci wàll yépp bi ak bitti adduna bari nay pakk lool waaye ku sax dakk bu nu saxee dakk ci li ñu fi sëriñ bi bàyyil warat noo tiit dara dañ koy tënk rek ci mu sax dàkk ci wutal yàlla sax dàkk ci doyloo sëriñ bi diggam ak diggam ak boroomam te nekk ci li mu nekk loo bu ko defee duñ waruñu tiit dara duñ jaaxle ci dara du ragal dara te dara mu du man ci woon ci noonu dara kon loolu mooy li ci am solo góor góor bu baax ci nekk li sëñ nekk ci nekk sëñ nekk ci li sëñ bi bëgg ci noonu nekk ci li mu nekk loo te wéetal wéetal suñu borom gën a wé waxtu wu ne ci biir bitim ñu gën di wéetal suñu borom ci lépp di gën di doyloo sëñ bi itam nag di gën a borom ci lépp loolu mooy li nga xam ne eh, buñ ci buñ ci buñ ci góorgóorlu buñ ci gën a góor góorgóorlu rek gën a yëg. suñu bopp ci gën a moom suñu bopp ci tënki-tënki àdduna ak gàllankoori àdduna lu lu ci gën a nekk rek di gën a moom suñu bopp ci ci wàll googu tënki-tënki àdduna ak gàllankoori àdduna te bari na lool waaye loolu rek mënu ci mën a musal kon bu nekkee ci loolu loolu te li muy indil mooy taxi àdduna ak texe àllaaxira rek muccuk àdduna muccuk àllaaxira defarug àdduna defarug àllaaxira loolu rek la moo ci moo nu ci diggal kon noo ngi sant ñëpp di balu ak ñëpp dénkaane nun ñëpp nu balante ak bu xas wa ci lay amee jubbu yàlla bu amee lu doo tal dara loolu yàlla ak alaaxira ku tëlul ku tëlul ku tëlul dara nag loolu yàlla ak alaaxira sa lépp ak yiw ndax dootoo xëccoo dootoo xëccoo ci dara àdduna dootoo jëmee ci sama moroom jaam jenn yéene ji ñaaw waxuma laa jafe ga loolu noonu rek la demee nan góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax a baax ci gën a sax dàkk ci wéetal yàlla gën a sax dàkk ci jaamu yàlla loolu mooy ci suñ lépp nag suñu ci yiw adduna suñu yiwu adduna ak si yiwu alaxira suñu yiwu ngi ci loolu kon jërë ngeen jëf góor góorgóorlu bu baax a baax a baax te gannaaw ban sante cant goo xam ne yimul fen ndax bon suñu borom booleeg sëñ bi rek booba la ajo mel na ni suñu aj booba la ajo fajo ndax euh, sëñ bi doy noonu ci lépp doy noonu ci àdduna doy noonu ci àllaaxira nit dafa te ñàkk nekk loolu kon sant yàlla rek moo war ak nag jéem ma nekk ci loo xam ne ci la ko mën a sante kenn ku mën a liggéeyale jërë ngeen jëf. na ñëpp taal bi ñaan. Thank you.